ñu ngi leen di nuyu di leen nangul ziyaar di leen tatagal ci barab bi nga xam ni yàgg ngeen fii ñëw dafa fekk Serigne Mor Diop te tey jii ngeen ñëw fi ñëwin woo xam ni day tegtale kóllëre gi dox seen diggante ak sëriñ Mor Diop radiyallahu anhu mi ngi ñaan nag yàlla subhanahu wa taala mboolem fu fi waay jóge ba ñëw ci barab bi suñu borom na faj say aajo képp koo xam ne itam yëkkati na wu ñaq def ko ci ba bis ba réussir comme ni mu réussir mu ngi ñaan suñu boroom mu fajal la say aajo mu amoon rek ay quelques personnes yoo xam ni mënul ñàkk ñu tudd leen ndax fii sax seen aada nekkul di tudd aw nit waaye ñii nag day ñoo xam ne ñoom ak moom ñoo séq liggéey bi ñu feddali kóllëre nga doxoon sëriñ ci sëriñ bi ak ñoom moo tax faw ñu sant leen ndax ñoom gannaaw yàlla ñooy ñi amal bis bi kenn jiituwu ca nag association bi nga xam ni ñoo génne woon ci daara ji ndax ñoom ñoo woote ñoom ñooy bis bi ñoo woote ñoo def li nga xam ne mooy mooy bis bi kon ñoom am na jaaraama yëg na seen i yëg na seen taxawaay mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu taxaw leen ba fa ngeen bëgg egg ngeen weesu ko euh, association boobu nag su ko xasee ba tudd euh, comité bi nga xam ni moo organiser bis bi te wuute ci association bi yëpp ñoom am nañ jaajëf ju rëy ndax gannaaw yàlla coono bi ñëpp la waaye ñoom kenn gënu leen a sonn kon mi ngi leen di sant bu baax ci seen biir it la comité bi nga xam ne mooy yore wàllu culturel ak information ca la bokk ñoom it gis nañ ni seen taxawaayu ren ci dëkk bi seen taxawaayu ren ci télévision yi ci site yi ràññiku na bu baax ci mboolem région yi ñoom ñëpp wax nañ loolu kon sëriñ bi mu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal ak di leen encouragé ci ñu gën a def yitte ci lépp loo xam ne day dundal liggéeyu sëriñ bi ndax liggéeyu sëriñ bi weesuwul liggéeyul alquranul karim ñi ci topp mooy mboolem daayira yi daara daayira jumaa ji daayira daara ji ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ak comité bi nga xam ne itam ñoom ñooy saytu jumaa ji ñoom ñëpp sëriñ bi fàttewu leen gis na seen yitte bu baax te moom it la sëriñ Mor daan wax ne séede la ci seen dërëm yi moom it séede lay doon ci seen liggéey yi ca kanamu sëriñ Mor incha allah di wax ne soxna Xadi Sëy ak mboolem mbooloo mi nga xam ne ñooy ànd di ko jàppale ci liggéeyal daara ji ma ngi leen di gërëm bu baax ma ngi leen di ñaaral bu baax naka noonu itam daayira bii di al ansar te soxna Fat Kine Diagne jiite ko ñoom ñëpp it ma ngi leen ameel gërëm lool ndax yii day daayira yoo xam ni daara ja lañ ñoom daara ja rek moo leen jóg soxna Cooye Njaay di jàmbaar ci daara ji mbooloo mi nga xam ni ñoo koy jàppale moom it sëriñ bi mu ngi gis na liggéey bi te mu ngi leen di sant bu baax ak di leen ñaanal subhanahu wa di sant bu baax nag mboolem aimma yeeg olamaa yi ci seen jotaay yu rafet yi ak seen kàddu gu rafet gi ñu ngi leen ci sant di sant raabita bi nga xam ne mooy raabitatul madaarisul quraaniya faro bi jóge Dakar ak faro bi jóge Touba yépp sëriñ bi ñu ngi leen di sant noonu itam lay sant ittihaad bi nga xam ni moo lëkkale mboolem jàngalekatu alquraan yi noonu itam lay sante sunu mbokk yi yi nga xam ne ñoo teewal sëriñ Mokhtar Naar loo ca daaray Kokki ndax daaray Kokki ak daaray nga day jenn rek kon moom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di sant bu baax it euh, munazama bi nga xam ne mooy association Al Ihsan parce que ñoom ci taxawu daara la yëngu waaye nag daara ji di daara sëriñ Mor Diop ñu bàyyi ko xel lool di fi indi i ndimbal yoo xam ne du dakk mukk moo sëriñ bi itam ñu leen di sant bu baax di sant sëriñ Majenda Gueye di doomu alxaaji Maodo Gueye rahmatullahi alayhi moom it taxawaay ba bàyyam taxawoon ñoom moom ak rakam yëpp taxawee nañ ko ci bis bi sëriñ bi mi ngi leen ci sant bu baax noonu itam lay sante sunu mbokk Mamor gay ak sëriñ Seydou Sey mi nga xam ni yàgg na sëriñ bi lool rawatina ak bisam yu mag yii da caa yanu loo xam ne wax dëgg yàlla di ko jàppalee sëriñ bi ëpp naa bañ a tudd moom bi mi ngi koy sant bu baax ak di ñaanal loolu mu yàgg te sax di ko ñaanal itam ci njaboot gi ñu mën ko ci ak jàppale bu baax a baax a baax euh, sëriñ di Diang ak sun mbokk yi jóge Kër Manta nga xam ne ñoom ñooy bokk sëriñ bi bokk yi jóge Belal bokki Njóobeen yépp bokki Kokki sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax fàttewul bokk yi nga xam ne ñoo jóge Mauritanie kon yii ay nit ay ay jëmm la woon yoo xam ne mënuñu ko woon a ñàkk a wax donte da nga xam ni ñu def na ñoom bari nañ lool waaye mënee su fi nekk di lim ñëpp kon képp koo xam ne limun la itam ñii ñu lim dana la yóbbaale ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu yàgg koo fekkee di ñaan sëriñ ahmadou xari toogaay bii yàlla na séddu guyi la sëriñ bi naaloon ci lislaam yàlla na ko eggale ba naal ay naalam mboolem fu sëñ bi sampoon dara itam yàlla nañ ko gis muy manaara boo xam ni day continuer di am continuité ba yowmal qiyaama di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu fajal nu suñu aaja di fàttali rek li sëriñ ahmadou xari daan wax te sëriñ bi di ko waxloo mooy mbooloo mi nan góorgóorlu bu baax ci li nu tax a ñëw ci àddina te bàyyi na fi rawat nag ndaw yi ku ci toll ci jàng na góor góorlu jàng xam-xam nag yëpp a baax waaye na tàmbale ci bu diine waaye itam bu mu bàyyi benn xam-xam ndax xam-xam yëpp mooy baax suñ ca noppee nan nangoo liggéey te bàyyi taxawaalu te bañ di yàq